asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi ku dégg kàddu yu sell yooyu xam ne mbir am na lan moo am Chérif Ibrahima Haydara Atijaani mooy ànd ak rakkam soppem xaritam Thierno Cheikh Omar Tall bu sunu maam Thierno Mouhamadou Bassirou Mountaga Taha Cheikh Hadj Omar al Foutiyu di amal lan bis bu jagleel ko ne ki nga xam ne mooy Ceerno Mouhamadou Bassirou Mountaga Taha Cheikh Hadji Omar Foutiyou muy bis bay am ca Wakaam mbokk yi bis ba nan la war a demee Chérif Ibrahima Haydara ne bu nu yàlla yóbboo ba aljuma yam ak ñaar fukki fan daanu déparé fii nga xam ne moom mooy amookaat ginnaaw bu buñ jullee jumaa ba noppi Chérif nee na maa ngi woo mbokk jullit yëpp ñu daje ci kër gi def convoi waajal jëm wakaam ca xadara ba nga xamante ne ni dañ koy ànd ak sunu maam ja sunu sëriñ Ceerno Bassirou Mountaga Taha Cheikh Hadji Omar Foutiyou ak mboole mu jullit yi mbokk yi Chérif ci laa leen di woo kuy ñëw laajo ñu la dara ñëwal ngir yàlla ak sa jëm ak soppe incha allahu taala lépp dana fa daje. ñu ni ko ah, ah kay shérif mu ni xanaa laaj bi bu dee doon lenn rek lay doon sàkku naa kenn kuy ñëw daal bu ma sañoon nga solal ma mu weex tal ñu àndandoo bu nu ñëwee sëriñ bi xam ni njaboot gaa ngi. mbokk ju juliti mi ngi noonu bu samdee nag day yemook ñaar fukki fan ak benn ñun ñëpp dañuy àndandoo nag sañse ba jekk ñëw dajewaat fi nga xamante ni fa lañ daje woon ca aljuma ja daal di préparer nag dugg ci convoi bi. buñ paree ci combat nag ànd koog sunu sëriñ sunu soppe Serif Ibrahima Haydara at Tidiane mu jawali nag jëm fa nga xam ne nii mooy wakkaam war a nag dem ci cérémonie officielle ba ànd koog rakkam soppeem xaritam Thierno Cheikh Omar Tall bu sunu maam Thierno Bassirou Mountaga Tall Cheikh Hadj Omar al Fouti buñ demee ci cérémonie officielle ba nag def la ñuy def ba noppi nag toog ñun ñëpp ñu daal di teewlu nag déglu ki nga xam ne ni mooy Thierno Bassirou Mountaga Tall mu daal di waxtaan ak ay njabootam ñaanal leen mu xool ko mu xool nu aju yëpp faju nu dem ba beneen yoon incha allahu taala mbokk yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi إلهي وجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم